الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بقي نيجي سانت سني بروم سبحانه وتعالى di ko ñaan mu julli sunu yonente ba muhammad sallallahu alayhi wa sallam di leen dénk ngeen ragal yàlla ni yàlla yeyoo ñu ragal ko ko nga la waay kenn ci yéen bu mu dee mukk lu dul fekk ne mi ngi jébbalul boroomam subhanahu wa taala gannaaw loolu mbokk julit lu ëpp ci yéen xam nañu ne ñu ngi nekk ci fukk yi gën ci at mi yépp fukki fan yi gën ci at mi yépp fukki fan yooyu nga xam ne la ci ëppoon jàll na waaye fa lillahi alhamd la ca gën mi ngi ci sunu kanam fukki fan yooyu yonent bi salallahu alayhi wa sallam waxoon ñu ay ngëneenam muy mbaax bu bawoo ci suñu boroom nga xam ne tànn na lenn ci ay jaamam yóbbu leen ñu aju ci néegam bu tedd ba yal na yàlla yombul leen yombalal leen aar leen te delloo leen seeni njaboot ci at bu ñu nangu waaye suñu borom xam na ne ñëpp mënuñoo aji looloo tax aj googu mu farataal ko benn yoon ci dundu doomu aadama bi waaye heure bu aj màkka jotee mu indi jaamu yàlla yoo xam ne ñi at ak ñi ajul ñëpp ci bokk am tuyaaba ak ngërëmal yàlla mu bokk ci loolu fukki fan yi nga xam ne ci la ñu nekk suñu borom waat ci màggaayam wal fajri wa layalin ashr suñu borom tudd ko ci ay place ne mooy ashahid wal mashhud loolu mbokk dañuy gis ne ay ngëneel la yoo xam ne suñu yonent salallahu alayhi wa sallam mi ngi ci bégal jaami ci ne amul jëf boo ciy def ak jëf ba lu mu tuuti tuuti lu dul jëf bu la mënoon a yéem doomu aadama def ko ci yeneen bis yu dul bis yi lu dul sa jëf ju tuuti joojee moo gënal yàlla ak jëf jeneen ju màgg-màgg loolu mbokk jullit ñu war cee bàyyi xel rawatina nag li nekk suñu kanam muy bis bu màgg bi bis bisu arafa nga xam ne mi ngi nar a ñëw ci dimanche bii di ñëw suñu borom yàlla subhanahu wa taala waat ci moom it wa chef iwul watr lii mbokk buñ ko gisee yeneen ci bi alei salaam daana wax ashahid mooy yowmu arafa wal mashhud mooy yowmu jumaa di bis boo xam ne suñu borom yàlla subhanahu wa taala dana wàcc ci nam ko neexee ci asamaanu benneel di woo malaaka yi di leen wax kaay leen xool sama jaam yi nga xam ne ñoo daje ci arafa jóge ci gox yu sori ma moom ñii lu ñu bëgg ma moom lii ñu ñu ñii lu ñu bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne amul benn bis boo xam ne yàlla dana ca goreel ay nit ci sawara lu raw na muy goreele ci bisu arafaat yàlla nañu boole ci ñi muy goreel ci sawara ba faw mbokk suñu borom subhanahu wa taala xéewal googu mu ñu defal ma nga ànd ak beneen bis bu mag muy bisu altine ba nga xam ne ca mooy bisu tabaski jullit nan la koy waajale mbokk bis yu màgg yi suñu kanam la gën a màgg ci lañ koy waajale mooy tuub bu sell boo xam ne dañ koy tuub jëm say la nga xam ne mooy say bakkaar suñu borom yàlla amul lenn lu lay xañ ay ngëneelam ak yërmandeem lu dul ay bakkaar yu bari waaye ñaareel ba mooy dogu bu sell jëm ci sa borom yéene ne day lépp loo xam ne luy yiw la fas yéene nga koo def ci bis yi mbokk yéene bu sell boobu day tax ba la nga ca mënul it wala la nga ci deful suñu borom yàlla bindal la ko su ko defee ñu xam ne comme ni leen ko waxe sànq bis yooyu day la ëppoon jàll na waaye li ci gën ñu ngi suñu kanam ci ñeenti fan yi nga xam ne moo ci des ngalawaay niñ ci baril ay julli lool nañ ci baril di fonk julli yi ñuy julli ay yéen góor ñi fexe leen ba bu leen ci manqué julli mbooloo waaye fexe leen ba fu ngeen mën a nekk ngeen baril ay naafila yeneen ci bi salallahu alayhi wa sallam daana wax ne amul benn sujud boo xam ne yaa ngi koy sujud lu dul yàlla yëkkati la ci ab daraja faral la ci la nga xamee ni nii mooy ab bakkaar loolu mbokk di mbir moo xam ne ngallwaay nañ ci bàyyi xel rawatina la nga xam ne mooy ci guddi ya ñu bari ci ay naati la ba lenn ci la nga xam ne nii mooy borom xam-xam yi da ngay gis ne dañu daan wax ne ngallwaay guddi yi fukki guddi yi bu leen fay seeni lamp ay ngir baril ay naati la comme na ko Saïd ibnu Jubayru doon waxee mbokk bari ci loolu la nga xamee ne nii moom mooy ay tudd yàlla bu bëree bëri yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam day nee na amul yenn gis yoo xam ne gën naa màgg ci yàlla ci lu mel ne fukki fan yi nga xam ne moo ubbi tabaski ngallaway bari leen ci di wax li nga xam ne moom mooy la ilaha illa allah alhamdulillah ak allahu akbar ngallaway su ngeen toll doo leen ko bari di wax subhanallah alhamdulillah la ilaha illa allah wallahu akbar lii mbokk tax na ku mel ne ibnu omar ak abi hurayra daanañ dem di dox ci mbedd yi ci fukki fan yooyee daan jaar ci marché yi di kabbar ci kaw ngiree fàttali doomu aadama yi dañoo war a baril fuñ mën a toll di baril ay kabbar xatta bu doon da ngaa nekk ca marché ba mbokk bokk na ci loolu mooy jéem a wattu la nga xam ne mooy say fay yonent bi salallahu alayhi wa sallam ci li imaamu ahmad solo na ko nee na bisu arafa day amu ci benn julit boo xam ne dana téye la nga xam ne mooy déggam ak bu ak ak ak i bëtam ak lammiñam ba defu ca lu yàlla bañ lu dul yàlla bool baal ko mboole mi bakkaaram ngalla waay yow fàttalikul bisu arafa boobu xamal ne day am na ay mbokk julit lu ëpp ay 3 millions yoo xam ne ñi ngi jóge ci gox yu sori dépensé des millions ngiree mën a teew arafa dara yóbbuwu leen fa lu dul sàkku ngërëmal borom bi ngal la way bisu arafat bii di ñëw di bisu dimanche def ko bis boo xam ne da ngay jàkkaarloo ak sa borom dogu jëm ci sa borom journée bi yépp nga profité ci loo man ci lu baax ngal la way def ko te xamal ne lu gën lan tey def mooy nga def ko muy bisu koor yonent bi salallahu alayhi wa sallam nee na day maa ngi yaakaar ci yàlla ne képp koo xam ne dafa woor bisu arafa ku mel noonu day yàlla dana ko baal bakkaar yi at mi mu jóge ak bakkaar yi at mi mu jëm yépp loolu mbokk mbir la moo xamee ni nii la ma la wax sànq ci ne lay dox sa diggante ngërëmal yàlla di dox sa diggante ngëneelu yàlla ak yërmaande mooy ay bakkaar yonent bi salallahu alayhi wa sallam wax la benn bis booy woor ma faral la loolu lépp ngal la waay góor ak jigéen mag ak ndaw ñépp nañ góorgóorlu woor la nga xamee ni nii mooy bisu arafa boobu mbokk la nga xamee ne mooy bisu arafa bii nga xam ne mooy nar a ñëw nañ ci baril lu ñuy ñaan lu ñu mën a xam ñu ñaan ko doonte ne yonent bi salallahu alayhi wa sallam day daan nañu dëggal ci ne ñaan gi gën a màgg gu nit di ñaan mooy ñaan gi ñaan ci bisu arafa waaye li nga xam ne moo gën ci li may ñaan maag yonent yi ma jiitu woon yépp mooy di wax la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu lmulk wa lahu lhamd wa huwa ala kulli shayin qadir kenn yeewul ñu koy jaamu ku dul yàlla moom dong amul benn bokkaale moo moom nguur gi yépp moo moom cant gi yépp ca mooy ki am kàttan ci lépp mbokk li ñaan la boo xam ne boo koy xool day mel ni gisoo ci ak ñaan waaye yeneen ci bi nee na mooy ñaan gi gën a màgg lu waral loolu mbokk yow mi nga xam ne da nga soxla woo ci koo xam ne boromi teranga la yàgg def ay teranga soo ñëwee daal di koy fàttali ay terangaam fàttali ko mbaaxam da ngay gis ne dana la may lu ëpp la nga xam ne ah ñooy ñaan dañ koy ñaan tey jii bokk na aada yoo xam ne maam yi ñoo ko fi indi woon ñu naan masalan kii day mooy ab géwlu juddoom wala nangam da ngay gis bu ñëwee ci xew wi du ñëw di ko ñaan day ñëw rek di ko tagg waaye tagg googu mu koy tagg bu koy may dana ko may lu ëpp ña nga xam ne dañoo jóge ci làng ga rek ñëw naan ko jox ma saa wàll kon ñu xam ne ñaan gi gën a rëy gu ñuy ñaan yàlla mooy di ko tagg di ko bàkk heure boo nee subhanallah yaa ngi ñaan yàlla heure boo nee alhamdulillah yaa ngi ñaan yàlla yeneen ci bi alayhi salaam mu ne afdalu dua mooy loolu heure boo xamee ni nii yaa ngi kabbar yaa ngi ñaan yàlla waaye la gën a matale lépp mooy la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu lmulk wa lahu lhamd wa huwa ala kulli shayin qadir profité ci ci yow maaraka bi baril ko lool rawatina gannaaw takkusaan ba baa jant bi di so li ñuy tuddee askaarul masa ay sikkar ya ngay sikkar ci ngoon ga ca julit war ngaa góorgóorlu di baril sikkar boo julee fajar ba baa jant bi di fenk waaye góorgóorlu di baril sikkar gannaaw takkusaan balaa jant bi di so comme na ko suñu borom yàlla di waxee qabla tulu tuluu shamsi wa qabla hurubiha mbokk da ngay gis ne bisu arafa boobee bu passé mu am nag beneen bis bu mag boo xam ne moo nekk ca gannaawam bis boobu nga xam ne lenn ci borom xam-xam yi nee nañ moo gën a mag ci at bi yépp bal moo gën a mag sax yow mu arafa ngir xadis bi nga xam ne nii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ko abu daawud soloo ko yonent bi alayhi salaam ne bis li gën a mag ci at bi yépp mooy bisu tabaski gannaaw ba bisu fukkeel ba benn loolu moo tax ba yow julit war ngaa waajal bis boobee heure bu la ci yàlla yóbboo soo xëyee xoolal nga sangu ni ngay sangoo bay dem ca jumaa ja nga xool li gën a tedd ci sa yére nga sol ko nga bañ a lekk lu dul ne da ngaa dem ba ñëw la gën la ngay lekk jóge ca xar ma nga xam ne dañ koo rey heure boo jógee di dem sa jàkka ja la gën mooy nga ànd ak sa njaboot góor ak jigéen mag ak ndaw xatta jigéen ñi ànd ak règle du ñu julli nañ dem suñ demee ñu toog ca gannaaw ngiree mën a fekkee xutba ba imam ba day xutba waaye fekkee ñaan nga nga xamee ni nii julit yaa ngi koy ñaan te yàlla di leen ko nangul booy dem ci jullikaay ba yoon bi nga jaar booy ñëw nga jaar ci beneen yoon gannaaw ba nga xam ne julli googu lu màgg la ca yàlla bal lenn ci borom xam-xam yi sax dañ koo jàppalee dafa nekk farata nga góorgóorlu ci bis bu màgg boobee daril ci la nga xam ne muy ay takbir takbir ya lenn ci borom xam-xam yi sax nee nañ na ngay commencé ca fajaru yowmu arafa waaye ala kulli xaal boo ko commencé wul foofu it xamal ne bisu tabaski ba moom bari lan la nga xam ne muy ay takbir takbir yooyu la ca gën a siiw mooy foo toll di wax allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah wallahu akbar allahu akbar walillahi alhamd loolu moo ca gën dañ ko waril baril di ko wax xatta góor ñi sax sunnaal nañ ñu yëkkati seen kàddu ca jàkka ja di yëkkati takbir yooyu nga xam ne nii dañ koy def xatta ba ba ñetti fani tabaski yi di passé gannaaw loolu mbokk julit suñu borom yàlla ubbil nañu jaamu yàlla goo xam ne du ci ñun rek la ko jëkk a farataal barxeet yi fi jëkkoon yépp am nañ ko mooy bis bi leen yàlla jagleel ñu war caa rendi wa li kulli ummatin jaalna mansakan li yadkuru isma allahi ala ma razaqahum min bahimati al an'am amul benn xeet lu dul yàlla subhanahu wa taala utal na ko bis boo xam ne dañuy tudd yàlla ci jurgam leen wërsëgal loolee kon képp koo xamee ni nii mën na rey gàtt te bis boobee ngan la way na xam ne doon na sunna bu dëgër lool ba yenn ci borom xam-xam yi sax yóbbu ko ci farata mooy kër gu nekk ñu rey fa benn xar te loolu buñ ko reyee def nañu sunna yonent bi alayhi salatu wasalaam ñu ngi woo nag la nga xamee ne ay soxnaam yam nekkaloon ca kër ga ak surga yam nekkaloon ca kër ga waaye benn xar la daan rey ñeen waa kër gi yépp loolee kon yow soxna si bu ko def problème yow mi nekk ci kër gi di doom wala leneen bu ko def problème ki nga xam ne mooy seen kilifa bu reyee xar benn xar yóbbaale na waa kër gi yépp ndax suñu borom yàlla yàpp beeg béréb ji itteelu ko li ko itteel mooy ragal yàlla ñu xam ne bis boobu la yàlla gën a bëgg ci jëf mooy ñu reel ko xar waa ji sarxe woon un million jël doon xarum cinquante mille rey ko moo gën ca yàlla yeneen ci daal islam mu ne bisu yow mu naxra kenn deful dara lu gën a màgg la nga xam ne mooy rey am xar xar moomu dina ñëw yowmal qiyaama ànd ak bëjjën yaag karaw yaag tànk yaag yépp ñu bindal ko waa kër gañ sa reye loon ay wax naa la sànq ne tuyaaba ja du yem ca ka ko rey kese bal waa kër gam ko yéene yépp dañ am tuyaaba jooju amma kër ga nga xam ne nekk nga fa reyu ñu fa am xar na sa xel dal yonent bi salallahu alayhi wa sallam jëloon na day benn tabax fi ñaari xar mu ne yàlla xar mii day muhammad moo ko moom ak njabootam rey beneen xar ne yàlla xar mii day ñi amul tabaski ñoo ko moom ci sama xeet ba ila yumi diin kon nga la way yow julit heure bu tabaski jotee nga nekk foo mun ko tabaski na sa xel dal ci ne am nga yoonu tabaski loolu mbokk mi ngi noonu doonte ne tabaski boobu la nga xamee ne nii mbokk julit moo ca gën mooy xar doonte ne bëy dagan na ca waa dakaaru nag xamuñu ko waaye xar mooy la ca gën gannaaw bu bëy xar moomee la ca gënoon mu am at loolu ca gën am naa bu xesee ba passé juróom benn weer rek dagal nañu tabaskee ko ñu fexe ba la ci yeneen ci daal islam doon waxit ñu may ko ko nee na ñeent yi moom baaxul boo xam ne dafa feebar ku ko gis xam daa feebar boo xam ne dafa laggi ku ko gis xam daa laggi boo xamee ni nii dafa loof ba koo xamee ni nii da koo gis xam ne kii kat nekk na ku loof ak bépp boo xamee ni nii daa patt ba ku ko gis xam ne daa patt mu ne yii moom du baax gannaaw ba nag am na ci yenn yoo xam ne ni sib nañ ko ca mooy ayib bu ca am rek loolee dañ koy sib am naa bu ne yii ñu la waxoon ñu ci bi nee du baax su ko defee ñu fexee nga rey ko boo koy rey nga wax bismillah wallahu akbar yéene sa biir xol ci ne lii yaa ngi koy rey yaag sa njaboot soo ko tuddee sa lammiñ baax na boo ko tudd nit lay am solo mooy yéene ja ndax suñu borom mu ne la koy yegg ca moom mooy taqwa minkum la gën ca xar moomee itamit ngal la waay xamal ne boo ko toggoon yaag sa njaboot lekk loolee dagal na waaye loolu gënul la ca gën mooy nga jël ca sarxe ca maye ca yeneen ci suñu borom mu ne fa kulu minha wa atimu lbaisa alfaqir na ngeen ca lekk maye ca la nga xam ne ku ñàkk la ak koo xam ne nii dafa nekk ci ku tar ci ñàkk feneen bi mu ne qaani awal muxtar ñay ñaan ak ña ñaanul na doon ñooñu sax dañoo doon ñoo xam ne dañ daa ëppale ngan la waay kon loo man lu mu niiw niiw rek sa xaru tabaski jël koo nga may ca ñeneen ñu nekk loolu mooy la nga xam ne moo ca gën waaye gannaaw ba mbokk julit ñu xam ne bisu iit mi ngi nii suñu kanam ñu waajal ko waajal goo xam ne nii mooy waajal ko def ko loo xam ne nii ak jaamu yàlla dong mu lañ cee war a séentu moytu ca lépp loo xam ne ak yàq la rawatina mbokk ñun Sénégal bokk nañ ci ñu yàlla gën a nattoo ñu dàq yàq ci adduna bi waaye xam leen ne suñu borom mu ne innahu la yuhibbul musrifin yàlla bëggul yàq lépp loo xam ne nii yaa ngi koy def xoolal la nga xam ne lii day war naa doy nga yem ca loolee amma leneen lu dul loolu yàlla bëgg ko amma boo yemee ca la doy lépp loo xam ne dépensé nga ko yàlla dala koy nangul muy sarax bu dee ak lekk la lépp loo ca lekk sant yàlla yàlla bindal na ko muy tiyaaba loolu kon ñu bàyyi ci xel bu baax te it xam ne bañoo def suñu bisu it gannaaw ba it muy bisu caaxaan ak bisu ay ay yu kenn xamul it dëgg-dëgg ka nga xam ne moo cay jëriñu mooy ka cay jóge fekk yàlla subhanahu wa taala baal na la ko ay yéen mbokk julit yàlla day xëywoon na lu jege ñetti million ci ñun bisu suba bii la ñuy dajaloo jëm sa nga xamee ni nii mooy muna ngiree ah ngan gu leen suñu borom yàlla di baaxe di ganale waaye yow mi nga xam ne da ngaa sori néegub yàlla bi ngan la waay jéemal jege sa borom yàlla yàlla moomu moo gën a moo la gën a jege na nga xamee ne noonu la kaaba gi jegee waa makka ci lan ca la nga xamee ne ni mooy xam-xamam ba ak yërmaandeem ba ak gisam nga ak déggam nga ndan la way bu dee nit ñi jóge nañ gox bu nekk jëm ca néegub yàlla ba jëmm na nar a jëm arafat nga la waay yow it bis yii def ko bisu jublu jëm ci sa borom ci baril di ko takk baril di ko tudd baril di tuub jëm ci moom baril di jullu ci ab yonentam baril di ñaanal sa bopp baril di ñaanal say mbokk julit yàlla yàlla nangul ñu suñu mbooli mi ñaan yàlla yàlla defal ñu xéewal yi nekk suñu kanam yàlla boole ñu ci ña gën a màgg ci ña cay xéewlu ci ay jaamam bépp yiw boo xam ne yàlla mi ngi koy wàcc ci ay jaamam ci fan yi yàlla yàlla boole ñu ca bépp bakkaar bu muy jéggale yàlla yàlla boole ci suñu bakkaar ñépp ñu muy goreel ci biir sawara yàlla yàlla boole ci suñuy tur ñépp ñu muy nar a jagleel jannatul firdaws yàlla yàlla boole ñu ci ak suñu njaboot ak mboolem suñuy wayjur boole ci julit ñi ak na doon fu ñu mën a nekk allahuma rabbana atina في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد